sëñ bi Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaay njiital kuréel gi nga xamante ne kon moo ëmb ci diwaanub Sénégal kinésithérapeutie ak rééducateur alors actualité bi nga xamante ne moo lëmbee réew mi tax ba ñuy wax ci seen métier ndax euh, coowal Ousmane Sonko ak lu ñu koy tuumal wàllub siif tekki ko def muy liggéey ci ab salon de massage ci Sénégal loolu taxoon ba askir bi nga jiite ne woon euh, dañuy constituer partie civile ana li waral dogal boobu. waa dañu ne woon ci biir waxtaan ne dañuy constituer en partie civile parce que ñun lépp loo xam ne yoon may na ko pour droit ñun dañ koy jël ndaxte dafa am ñetti mbir yoo xam ni dafa dafa dafa teewe ñaar ñi daf ñu concerné directement. Hmm. benn bi moo di ki nga xam ni moom mooy ki doon def massage bi euh, du kenn koo xam ni bokk na ci sunu métier bi wala am na diplôme pour loolu. Hmm. bi mooy ki nga xam ni moo ubbi cabinet bi aussi muy salon beeg yooyu. bu fekkee ni loolu la loolu la fay def loolu yoon mayu ko ko parce que gis ñu benn kayit bu mën a may nit muy def loolu bu weesoo ñi nga xam ne tey jii ñoom la seen xam-xam màcc ci mboolem mbirum rééducation fonctionnelle beneen bi dafay concerner affaire de de viol en tout cas ci plainte bi loolu la hmm. mais ñun euh, dafa màcc ci mbirum faj donc mais euh, ñu ne dañuy ut euh, euh, waxtaan ak sunu ñi nga xam ni ñooy suñuy conseiller juridique mhm. ñu am sunu benn avocat muy maître Moussa sar ñu waxtaan ak moom bi ñu moom ci mbir bi moom mu jox ñu li nga xam ni yoon may nañu ko ak li nga xam ni yoon mayuñu ko mhm. xam nga mu xamal ci mbir mi am instruction bi nga xam ni moom moo am instruction bi benn point rek la concerné par rapport ak ñetti point yi ñu ko wax benn point boobu moo di nit moo porté plainte parce que problème de viol la viol boobu nag entre ñoom ñaar la donc ñun en aucune façon amul benn préjudice boo xam ne teg nañu ko donc bu ñu bëggee constituer loolu ci parti civile dañuy ragal ñu débuté ñu donc du mën a nekk. Hmm. donc muy loo xam ne aussi dëgg-dëgg boo ko seetee dëgg bu wér péng la xam nga. Hmm. donc bu fekkoon ne nag jàpp nañu ndaw si ah parce que dafa def usurpation de fonction bu boobaa ñun mën nañoo constituer parti civile bu dee aussi borom salon bi jàpp nañ ko parce que dafa ubbi cabinet boo xam ne jaarul yoon mën nañ ko poursuivre comme comme comme affaire bi demee noonu mm-hmm. mais maintenant benn bi ñu ne kon mënuñu constituer wu partie civile ci problème boo xam ne instriction bi ci benn wax rek la wax mooy waxu viole ba yóbbu ko ba këyit boobu peut-être yóbbu ko ci procureur mais dañ ne ñun quelque que soit alpha même bu loolu amee du ñu tere ñun li nga xam ni moom la ñu nekk victime. Mm-hmm. te du ñooñu kese parce que tey jii du foof rek moo am ay salon de massage. Mm-hmm. du weesoo salon de massage yooyu li gën a garaaw sax nekkul foofu parce que massage xëñ na ci muscle rek lañ koy def ak ndig mais li gën a garaaw mooy ñi nga xam ne tey jii nit day am AVC. nit wax la ne yaakaar ne ni AVC boobu dàmp la rek war na koo maase ba aggraver nit kooku ay situation am ba kooku ay situation grave wala nit am accident am paraplégie ñu war ko def rééducation ñu dem di ko defal loo xam ne waruñu koo waruñu koo def bay ba ndil ko ay dégâts donc du question masse masseuse yi rek du question wu ñu ubbi cabinet ñëpp mais ñëpp ñi nga xam ne tey jii ñi ngi nekk ci illégalité di exercer métier boo xam ne du seen métier te ñun ñu jàng ko yor suñuy diplôme donc ñooñu dañ bu ci yoon donc loolu kenn duñu ci génne lu ñu jël comme décision la hmm. maintenant bëgguñu personnifier ñu ne dañuy dañuy dañuy porter plainte benn nit ñu yaakaar ni dañuy am fu ñuy far wala far feneen donc ñooñu ñëpp kenn du ci échappé. Hmm. képp koo xam ne laal nga ci. ak foo mënti toll. en dehors de cette situation. bu jaree ñu yóbbu ci yoon dañ la yóbbu la ci yoon. Hmm. mais dañu nekk ci procédure lu ñuy wax procédure administrative. Hmm. parce que ay fonctionnaires lañu dafa am lu ñu régir. am lu nu dépendre muy ministère de la santé. tey ji métier bi ñu yor ku ko war a def il faut nga am autorisation ministère de la sant autorisation ministère boobu moom mooy jox cabinet. te liste yi ci cabinet yëpp man gisuma ci fenn fu ñu bind cabinet de massage amul. cabinet kinésithérapie moo am parce que massage acte de soin la comme ni piqûre nekkee acte de soin. Hmm. comme ni comme ni def pansement nekk acte de soin wala peut-être consulter nit nekk nekk nekk nekk nekk acte. Hmm. donc yooyu yëpp moo tax ñun ñu ne dañuy entamer une procédure saisir le ministère de la santé ni ko kat am na ñoo xam ni ñu ngi sàcc métier jàmbur am na ñoo xam ne ñu ngi ubbi cabinet te waruñu ko ubbi te yow yaa yor ki nga xam ni mooy garantir règlement bi hmm. saisir nañ la nag ñu ngi lay demander nga dem arrêter loolu. Hmm. maintenant su fekkee ne ñoom ministère de la santé jëluñu seen responsabilité ñu du neen jël suñuy responsabilité parce que nag ñun ñoo moom métier bi du kenn ku ñu war a protéger ñu ñooy protéger suñu bopp donc soit l' état réglemente ou bien l' état veut l' anarchie te bu état moo bàyyi loolu mu def kenn dootuñu reproché ñun en tant que fonctionnaire ñuy liggéeyal fonction publique ba pare ubbi suñuy cabinet bopp di def comme ñoom bu boobaa kenn duñu ñëw ni pourquoi ngeen di détourner malade wala ngeen di def leneen. Ah, ah, parce que soit il réglemente wala soit ñu dem ci anarchie. Mm. su la déggoo bu baax ci anarchie nag bu ko réglementé woo ñun ñëpp ñu dem ci anarchie. Mm. waaw waaw suñ la dégloo bu baax dafa mel ni kon mënoo nekk masseuse wala masseur te defoo ab tàggat maanaam formation ci wàllu kinésithérapie. waaw non xam nga dem sax même dans le domaine de la communication même sax ci biir santé da nga ciy gis koo xam ne tey jii day ñëw ñu dugal ko ci biir secteur de la santé du am benn diplôme. Hmm. mais par yenn saa la pratique bu muy def dina dem sax ba yow mi nga xam ni sax yow am nga diplôme sax dina la ci am sax loo xam ne mën na la ko ci ëppale. Hmm. parce que pratique bokkul ak théorie loolu dafay am mais dama ni ki administration loo xarañ xarañ xarañ xarañ xarañ xarañ. Hmm. dafay am loo xam ni moom moo la koy prouver mooy wane ni mooy mooy mooy mooy sa pièce d'identité mooy diplôme bi même journalisme am na ci dans le domaine de la communication ñoo xam ne tey jii école de journalisme mais xarañ ci journalisme bu ñu taxawee wax bu ne la jaaruñu école doo ko gëm mhm. mais ñooñu tey jii bu ñu demoon ñu ne kan mooy journaliste génn kayit tamit bu ñu ci génne war ñu war a mer parce que amuñu Lidia Saba hmm. bien que am nañ nag euh, xam-xam ba ak loolu moo tax ma ni la lu ci nekk nañ ko réglementer hmm. su ah. fekkee ni besoin la ci pays bi ñu réglementé ko comme ni ñuy def ba am côte de la presse bien que sax code de la presse sax même bu dee voté nañ ko am na ay décret d'application yoo xam ne signé wuñ ko mais ñun ci biir santé suñu problème majeur mooy code santé moo hmm. amul. Hmm. Euh, loolu moo gën a garaaw bu ko waxee ni ñi nit ñi duñ ko jëm mais code de la santé amul ay ordre ñoo fi am. Hmm. ordre yooyu li muy réglementé benn corps rek lay réglementé bu ne ordre des infirmiers te amul sax infirmier rek lay réglementé mais code de la santé mooy réglementé képp koo xam ni corps la bu nekk dans le secteur de la santé ñu ne xam ni yow fii nga commencé ak fii nga yem su ko defee képp koo xam ne defloo ci yoon yoon dina tegu sa kon moo waral yéen amu leen ordre des kinésithérapeutes. non non ordre bëgg nañ ko mais ordre veut la xam nga loi lu ñu may ñi nga xam ne ñooy kiné. Hmm. loolu la may médecin moom la may pharmacien moom la may chirurgien dentiste moom la may moom la may euh, technicien bu mu mënti doon comprendre la. Hmm. mooy nga créer association. mais légiférer ak réglementer ñun amuñu sañ-sañ loi mayuñu ko. ordre ça ça dépend du cadre législatif et réglementaire. Hmm. kan moo am sañ-sañ réglementer c'est le chef de l'État moom mooy jël décret. kan moo am sañ-sañ légiférer c'est l'Assemblée nationale. maintenant suñu bëgg-bëgg am nañ association mais bëgg nañu ordre mais ordre volonté politique la. Hmm. c'est l'état mooy wax ni ah métier bi de dama koy dama koy réglementer pour bañ mu am ay dérapage hmm. loolu état mooy jël décision boobu bu état jëlee nag décision deful loolu mais ñun mënuñ ci dara ñun lu ñu mën rek réclamer mais bu fekkoon ni ñun la dépendre am nañu ordre. kon mun nga nangu ni seen métier bi dafa manqué ab cadre juridique. non xam nga cadre juridique bi mooy li ma lay wax. cadre juridique am na parce que cadre juridique ci santé la nekk santé moom boo ciy liggéey am na lu ko lu ko la parce que da nekk ci état li lii nga xam ne mooy fondement mooy la constitution constitution lu jëm ci santé am na ci donc cadre bu am nañ mais dama la cadre bi ko war a mooy mooy mooy par exemple code de la santé boobu amul donc am na vide juridique boobu ngay wax. Hmm. am na mais maintenant vide juridique bo amee ci fenn. danuy wax lu ñuy wax jurisprudence dañuy xool li ko gën a jege en matière d'interprétation de loi et de règlement ñu tënk ci loolu Hmm. or vide amul ci côté boobu parce que en avant indépendant c'est-à-dire en 1953 dañu nekkoon ci li ñuy wax Afrique occidentale française hmm. dafa am benn décret boo xam ni 1953 lañ ko signé woon décret boobu moo réglementé woon affaire masso-kinésithérapie hmm. décret boobu li mu wax dafa ni pour def massage ñenn rek lan ko may mooy ñi nga xam ni am nañ diplôme de masso-kinésithérapie texte bi existé na. Hmm. mais depuis boobu ba tey amul beneen texte. nii législatif nii réglementaire. bu nu bu nu bind. donc comme amul beneen texte ñun ci texte boobu la ñuy référé wu. Hmm. Ah. te loolu yoon moo nu ko may. bu amul ordre amuñu leneen au moins am nañ texte bu ne kii yow yow dong yaa ko sañ a def. Ah, ci seeni activité ndax xam da ngeen di def ay séance à domicile maanaam fekk nit ki këram maase ko. waaw waaw dañ koy def. parce que xam nga pare saa yi mu am malade yoo xam ni. seen i déplacement day métti. parce que dinañ am feebar yoo xam ne tey bu nu waree jógee seen kër par exemple ki dëkk yëmbal hmm. wala mu dëkk Kounoune mu am paraplégie maanaam mu paralysé nga xam da nga ko war a defar rééducation hmm. mu war a foofu il faut mu yeewu quatre heures du matin il faut mu mobiliser ñaari nit il faut que mu jël taxi te taxi lu mu dee dee di ko fay cinq mille francs aller cinq mille francs retour su pare bëgg ñëw fay bi bu dee cinq mille francs la dina nekk quinze mille francs yoo xam ne tey jii moom nga war a donc loolu mën na diis ci nit ki mu am feebar boo xam ne <coughs> bu xoolee muy dépenser mu nar luur ah mu man bu ma amee ku mën a ak ma fay ko mais nag du faj yëpp la nu mën a la nu def ci kër parce que am na yoo xam ne dafay nécessité nga ñëw hôpital mais bu dee ay faju ndigg luy metti wala lombal si ak yooyu yooyu mën nañ ko def ci kër. kon Ousmane Sonko mënoon naa toog woote ñu ñëw defal ko li bëgg ci këram. non question de choix mooy li la wax bu ko neexoon mu wax nit nit kooku ñëw di ko defal séance de kinésie këram loolu c'est possible c'est très possible am na kilifa yu bëri noonu am na ñoo xam ne aussi euh, man damay am ay yoo xam ne par la ñuy doon ñoom du ñu mën a ñëw parce que nit ñi affluence bi day bëri te bëgguñu peut-être ñu leen di xàmmee ñu toog foofu il préfère te demander ah comme yow say maladie nay jeex ay treize heures quatorze heures est ce que doo ma dimbali après midi bi xam nga hmm. ma ñëw nga jël ma après midi bi parce que doo am affluence hmm. comprendre mais hmm. loolu aussi mën nga ko ci dimbali nit ça dépend ci relation yi ngeen am xam nga mais am na kilifa yoo xam ni et ça je le dis j'ai quelqu'un que je respecte beaucoup bien que dañ koy critiquer ci lu bëri muy Moustapha Cissé Lo Moustapha Cissé na fi am choc benn accident loxo bi dammoon ak affaire yu ñu bindal ko rééducation mu ñëw CTO suñu service la doon fajoo te suba gi la daan ñëw da daan toog foofu rang comme ni ñi et pourtant bi mu koy def mooy président parlement CEDEAO moo doon vice président assemblée nationale. Hmm. xëj na fa mu juddoo fa mu yoroo la moo tax xeebul service public xëj na loolu laa yaakaar quoi. waaw hmm. loolu dama koy saluer man. Hmm. man dama koy saluer. parce que au moins bu ñëpp defoon ni moom dinañ améliorer condition de travail service public. parce que bu ñëpp doon utiliser service public je vous garantis qu'ils feront en sorte que ce service public laa ñu renforcer ko mais boo ko fajiwul bu nee da ngaa am grippe wala sa doom am grippe nga ne damay dem Tunisie wala damay dem Maroc doo hmm. defal ta service public ñoom ñëpp kenn ku ciy feebar koo xam ne di nga fajoo ci suñu service parce que amuñu confiance ci suñu hmm. loolu mooy loolu mooy drame bi léegi ngir nga doon kiné euh, fii ci mim réew euh, lan la laaj ak ban waa waaw kiné xam nga profession euh, universelle la c'est-à-dire formation kiné ñaari option la mën nga def concours professionnel comme mën nga def concours direct. Mhm. donc dafa am ay niveau mën nga nekk kiné mais niveau licence nga am cest à boo amee sa bac bac scientifique na la du mhm. bac littéraire parce que da ngay jàng anatomie jàng physiologie donc bac scientifique la. Mhm. nga def sa trois ans boo defee sa trois ans <coughs> nga am sa lu ñuy wax licence en en kinésithérapie exercer aussi bu la neexee aussi mën nga ñëw inscrire def sa master nga def concours pour def sa master deux ans soo paree bu la neexee nga dem def sa troisième cycle muy doctorat mais doctorat amagul fii Sénégal c'est à l'étranger soit c'est en Europe soit c'est aux États-Unis ou bien au Canada bu la neexee aussi mën nga dem ci domaine nu recherche ak formation mooy nga xam ne ay professeurs la ñuy doon di jàngale donc loolu mooy cursus kiné nekk il faut impérativement nga am niveau licence niveau licence bi mooy licence en soins infirmiers wala licence en soins infirmiers obstétrical mooy da am diplôme d'état infirmier parce que infirmier d'état c'est bac plus trois wala nga am euh, diplôme d'état ou sage c'est bac plus trois hmm. nga exercer pendant quatre ans nga doog a mën a présenter wu ce concours professionnel boo admis nag ngay doog a def sa formation deux ans tu sors avec le diplôme de de de de de de de, de kiné niveau master donc loolu mooy formation bi nga xam ni kiné mën na ko mën na ko mën na ko am bu mën ko mën ko mën ko hmm. def. ci Sénégal nag ci xayma ana ñaata hmm. kinésithérapeute la ñu am fii. donc fii nag ñi nekk en exercice matuñu matuñu juróom-ñaar fukk ah entre juróom-benn fukk ak juróom-ñaar fukk la ah tey jii boo demee Kédougou amul amul kinésithérapeute soo demee Tambacounda ñaar ñoo fa nekkoon benn grand bi dem na à la kenn moo fa des soo demee Matam euh, benn kine moo fa am te Ourossogui la nekk hôpital Ourossogui soo demee Kaffrine benn moo fa am Sédhiou sax ka fa nekkoon dem na soo demee Kaolack trois lanu soo demee soo demee Diourbel defe naa deux lanu ou trois nga dem Saint-Louis trois lanu hôpital régional bu Louga ñaar lanu donc pratiquement boo xoolee Dakar moo fi xaw am ay kiné yu ay service te service la gën a ëppale kiné matuñu huit kiné yoo fa nekk alors que man su ma lay wax même CTO boo fa ñëwoon lundi au moins on prend plus de cent vingt malades donc loolu et puis physique la ñuy def travail physique koy def au moins boo jëlee six malades war ngaa mais man il m'arrive parfois même de prendre quinze malades parce que mënoo rejeter malade hmm. yi da neurologique yu bëri lu mel ni IMC day dal xale yi mooy infirmité motrice cérébrale lu mel ni day dal xale yi am na ay maladie parkinsonienne da day dal nit ñi yooyu yëpp def rééducation ak yeneen ni maladie neurologique mm. donc tey jii wala nga nit am benn névralgie cervico-brachiale wala mu am benn compression médullaire tétraplégie wala paraplégie pour mm. parler de la neurochirurgie mais ñooñu ñëpp waa neurochirurgie dañuy bind boo demee orthopédie dañuy bind demande ay malade kiné ne am ñu opéré ko mu war a wér wala koo xam ne am na lésion musculaire soit mu nekk mu nekk ay élongation wala mu nekk ay rupture musculaire wala tey pédiatrie dañuy def demande parce que à la pédiatrie am na xale bu encombré parce que dafa def bronchiolite ñu hmm. defal ko ay fluidifiant mu mu mu fàtt la génne loolu da koy defal lu ñuy wax kiné respiratoire donc la demande est très forte ah, euh, kon le personnel n'est pas suffisant waaw bu fekkente ne doy leen kon mën nañoo jàpp ni ci seen métier bi moom amul ñuy chômer bu ñu jógee seen formation non chômage certain parce que ren recruter nañ neuf mais ñooñu chômé woon ñu ngi doon liggéey yeneen structure wala ñu liggéeyal seen bopp mais ñooñu concours direct lañ defoon ñooñu ba ñu génneeg léegi ëpp na fukki at parce que concours direct léegi kenn defatu ko ko professionnel rek la def mais ba ñu génneeg léegi ëpp na fukki at ça depuis fukki at recruter wuñu kiné comprendre mhm. mais ñooñu bi ñu leen bi ñu leen recruter nañ leen ren te loolu dañ ciy féliciter li état bi def mais pour mu a woon mais on en a profité pour poser le problème du système de santé bi ma koy wax nag di le parler en tant que syndicaliste parce que je suis responsable syndical en dehors d'être président de l'association des kinés boobu le président waxoon ni dina dina dolli ci kotaawu ministère de la santé ba jox ñu mille cinq cent postes loolu aussi ñu ko ci gërëm di ko ci sant hmm. mais dama ni moment bi ñuy wax ni recruté nañ neuf kinés depuis dix ans recruté wuñu am na peut-être xam ni dem nañ à hmm. xam nga boo amee fanweer yu dem à la retraite nga recruter neuf defe naa ni sa déficit ba amoon day gën a yokk déficit dafa amoon bien avant. li gën a graaw moo di boo formé wul. boo nee damay bëgg a recruter pour nga recruter il faut nga former or pour former rek ku am niveau licence kese il faut que at or nee depuis ñetti at ubbi wuñu donc perdre trois ans. Hmm. tey jii boo bëggoon ubbi concours bi ren sax pour déwén ñu commencé ça veut dire que deux mille vingt quatre ngay am kiné sur le marché six ans ou sept ans yoo xam ni doo am kiné sur le marché or trois années yi ça veut dire qu'il n'y a pas de politique dans ce sens en matière de ressources humaines. Cheikh Seck mm. euh, ñu ngi lay gërëm bu baax. Mm-hmm. mën naa leen di gërëm di leen sant bu baax. di fàttali kon yow yaay njiital association sénégalaise des kinésithérapeutes ak rééducateurs.